Pape Moussa saw di akub juriste bu kenn dootu présenté ci réew mii di Sénégal ginnaaw ba ñenn ci opposition bi génnee di wax ko ne kookee di président Ousmane Sonko di njiitalu parti bii di Pastef ginnaaw bañ tàmbalee campagne électorale yi le 7 novembre bi ñu génn ci réewu Sénégal ba tey kookee nekkeewu fi lu di menacer ay adversaire politique am di wane que ne moom mooy ki nga xam ne ne moom moo jiite justice ci réewu Sénégal te ku ko neex kookee la justice di teg loxoom ginnaaw ba ñooñee nag di amal argument boobee kii di Pape Moussa saw yëkkati na ay kàddu daal di leen di tontu kii di Pape Moussa saw ne waa opposition bi ñoo gën a xam que ne kookee di président Ousmane Sonko xaajul bay teg loxoom wala tànkam ci justice su réewu Sénégal te ne li ni mel lu koy firndeel moom mooy que ne ginnaaw bañ commencé campagne électorale yi ci réewu Sénégal ba tey ne benn parti la ñuy song benn parti la ñuy attaqué benn parti la ñuy gaañ ay militant te ne parti boobee mooy parti bii di Pastef ne kookee di président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu fiy amal caravane am daal di nañ koy song ci Koungheul daal di koy songaat ca maatam waaye tamit kookee di Abass ginnaaw ba muy amal caravane am daal di nañ koy songu foofee ca biir Dakar waaye tamit ne leneen luy firndeel que ne kookee di président Ousmane Sonko loxoom laalewul taqewut tegut tànkam ci justice réewu Sénégal moom mooy que ne waa opposition bi ci seen wàllu bopp ginnaaw bañ fi amee aku procès ñaari yoon te loolee yëpp daal di dem ci kookee di Bougane Gueye ne kookee di Bougane Gueye Dany ginnaaw buñ ko bàyyi yëpp daa daal di toog daal di remercier justice su réewu Sénégal donc ne bu ñenn ci opposition bi di wax que ne kooku di président Ousmane Sonko da leen di menacer te loolee day tekki que ne daa jël tànkam daal di koy teg ci justice su réewu Sénégal ne ñooñee lu ñuy wax ñoo gën a xam que ne xaajul bay dëppoog lu am.